ci biir réew mi ak bitim réew noo ngi leen nuyu baax baax di leen ziara di leen dokkeel baax te di rafetlu àndante yu am solo yi macha allah ñu ngi fii ci Guédé Bousso ci kër sëñ Mbàkke Bousso nekk ab xalifaam di ko ñaanal mu yàgg fi loo téwér sëriñ Omar Bousso li waral loolu nag gis naan jamono yi benn vidéo boo xam ne si mi ngi daw ci réseaux sociaux yi te mu jur ay commentaires yu baree baree bari muy benn soxna boo xam ne si ñi ngi koy dóor wax yu baree bari nag aju ci loola ñu ngi toog ak ab xalifaam di sëñ Omar Bousso sëñ Omar ginnaaw bi ñu ko nuyoo ba ziar ko rek ñu ko doon taataan ay kàddu rek ci taxawaayu Guédé Bousso ci loolu ak it buñ bëggoon a xam eh, nii nga xam ne Guédé Bousso mi ngi koy taxawee ci wàllu sariyan ak ci wàllu yoon yoonal koo xam si yoon dab na la ci loolu te ñu war laa dóor eh, naka lay demee incha allah rabi ñu maasee déglu sëriñ Omar Bousso. waaw yéen mbokk yi maa leen nuyu te leen sant di nga xam ne laaj ngeen lu mat a laaj ndax loolu bitti bi moo nu ko njëkk yëg loolu ngeen di wax bitti bee ko njëkk yëg ndax Sëriñ Tuubaa ci moom bi fi nekkee danaan yëpp la ci Mbàkke ku loolu daal ñu indi ko fi ñu def ko loolu yi ñu fi jë suñ mbaru saa noonu na koo fi mas a nekkal ku loolu la ñuy def gàmmu géer bi mu teraw léegi juróom-ñaari nit ñëw nañ fi ma tuut nañ gàmmu ji rek weer wi ndaw si ay bokk moo ko fi indi ñu ko fi indee ñu dóor ko ndeke am na xam naa ku seytaane gemb na ci àll ba yor appareil photo waaye sante su ko digalee su ko itam te it ndaw si it woowuñu ko forcé wuñ ko ay bokkam ko fi indi ak pas-pasu boppam bu am ci lislaam ne bu ko nekkoon bañ ndax mu kalaw léegi nag sëñ ci boppam day mbir moo xam ne bi ko dénk si Mbàkke Bousso bi taarif Masaalikul Jinaan ci Mbàkke Bawol ci Mbàkke la àndal dugg xarba ba mu àgg mu xamal ko lépp bi nga xam ne jóge na ci ba mu ñëwee bëgg a sanc Tuubaa dafa ñëw sanc këru daaru Minaan gi jox ko suñ Mbàkke ne ko may naa toog fi bu kenn ak ci man ci Touba ku bëgg a fi man na ñëw fi ñëw bu dee lu muy xam nga xamal ko bu dee lu ci mu doon nga ñëw ci man mu wax ko bu kenn agsi ci man ah, suñ mbàkke nekk ci loolu nga xam ne suñ mbusoo bi muy waajur suñ mbàkke jógee na mbusoo mbàkke kooku ñëw léemu sil suñ mbàkke kër gi ko léemoo ba àggal dem bi nga xam ne nekk na ci Touba ba mu jógee mu dem ci géej gi ba dikk ba demaat njaarim benn bés mu woo suñu mbàkk mu ñëw mu ne ko suñu mbàkk de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafay ñëw ànd ak ulul azmi ak sidna jibril jiite leen na ma sa borom sa borom nee na jox na la sayaatul islam yi bés ni ki tey ba baat ñu tukki nañ sa loxo wax de nee na mu ne ko waa tubaarkaal nee na ñaanal jibril ak wala ak ñu ñu dem nee bi te te sangam yonent bi toog fi wetam am na ko suñu mbàkk li tax ma woo la bi loolu am yonent bi daa des fi man ne ma lool sa borom jox ko dénk ko mbàkk bi su mbàkk dénk naa la ko su mbàkk sant bu baax ne ko naa ko def ko kii mu ne ko mu tax bay bëgg a ñaan mu ne ko waaw mbaa lislaam di jël fi man yooyu mu ne ko mu def nii bakkanam ne ko sama bakkan bi laa si garanti benn mu ngi fi lislaam du booy mukk ci àdduna dama ne ko tubaarkaal bi nga xam ne ne gis nga ñi tëj jàkk yi bakkan ba suñ mbakki garanti woon sëñ Tuubaa loolu moo ca la garanti woon sama bakkan dama daal xaw ma bu jàkk buy tëj yaa ma nangam nangam maa leen xaw waaye fii mu du maa boobu luy dikk sama gannaaw lay jaar ba noppi door ko waaye du ma du ma la suñ tubaab du ma nangu mu roore ci man daal di génn ñaan goo xam ne gi suñu mbàkk ko defoon ci jamono d'accord bi d'accord bi nga xam ne bi suñ tubaab door jóge li xewoon mu di ko def di ko def bés ba mu àggee ci lañ ñëw ne ko guerre bi jeex mu ne ah kon ñaan gi am na xaboon ajuma jooyee eh, kii bi tàmbalee ñu te jàkk yi yaa tàmbalee ne leen ajuma bu jot bala ñu bala ñu ko jàng ba mu àgg dara wala du mbas mi yàgg yàgg yàgg duñ ko def gerte gi moom dafa yàgg du wàcc mu caatu xalaatu si suñ mottal suñ mottalaay yi dégg na ko yónnee si ab taawam man ki jar baatal fekk ma ci daara ji ma wax leen ñu ne ma daal sëñ bi nee na ñu lay sant di gëm xam ne xam ne ci dëgg rek nga nekk lii ñu def nag ñu doon waxal ci wàllu xam-xam bi su waxoon yow ñu mel ni yow benn jàkka du ko ndax ñooñu dañ ko xamal ne ko xam nga jàng bokkut ak xam xàmme jàng nañ nag dañ ko ne juróomi yu ne yu ne fi barab mën nañoo julli mën nañu ajuma te bañ a tëj tëj jàkk tëj jàkk yi te ñu ñu wéy ca loolu te loolu ci ngirum imaam Malik mi ngi suñ faa toppaloon loolu bokk ci imaam Malik mu dafa wax nag kenn suñ ci julli ajuma ci juma te ci loolu suñ Tuubaa tënkuloo dégg nga daal di wax ne itam ah, julli man leen suñ Tuubaa musta julli ajuma te lu yële fu yële te tànkam teg na fa tànkam te musta julli ajuma sartu imaam Malik bi moo tax maanaam suñu mbàkk bu ñaari yoon la mos a julli ajjuma mooy bi waa kaw sëriñ kaw lañ xuloo ci seen jàkk ji ba tubaab yi ñëw tëj jàkk ji dañ ko tëjee suñu mbàkk yi ko jóge fii dem kaw la dajale kilifa yëpp waar leen ba ñoom ñëpp kenn ku ne suñu boobu say rongoñ mu laaj tubaab yi caabi yi ñu jox ko caabi yi mu ubbi jàkk ji bi di ko jóg man lañ keroog suñu mbàkk julli naa ajjuma ak bi mu demee mag def ah léegi ki doon dóor sëñ bee ko santaane yàllaa ko santaane sant ko yonent bi yonent bi sant ko eh, yonent bi sant ko sëñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa santaane ko teg ko ci loxol sëñ Mbàkke mu mel ne mu mel ne santaane boobu nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala ko santaane sëñ Tuubaa santaane ko hmm. waaye sant ko sëñ Mbàkke Buso ki nga xam ne yàlla dogal na yoon da koo dab te ñu war koo dóor euh, taxawaay bi moom nan lay demee bu ñëwee ba bu ñëwee ba fii euh, bëgg dóor ko moom taxawaay bi nu muy demee. ba ku ci ne danaa la wax ne la yëlifuñ la yëlifu kaay ñu dóor la yor ñu baatu bóor te digg sa borom moo tax nga ñëw la ko waxal ku def nii nañ ko bu dee gor nañ ko dóor euh, téeméeri yar bu dee ku euh, ñu euh, yilif dañ ko door juróom fukki yar bu dee ku naan sàngara dañ ko door ñeent fukki yar bu dee ku ku ku nit dañ ko door juróom-ñett fukki yar alxuraan la partagé moom waaye du càggee nit bakkan rek fii nag léegi nag xuma nangam jàmbal xuma doon ay journaliste yoo xam ne ñu ngi ciy wax dañoo wax lu seen yoon newut lañ jàng gëm ko topp ko nañ ca yem koo xam ne ki ci aw fen ngay dund ci ngay sol yére ci ngay def lépp wala ko mooy doo dund kooku bokk nag na yem ca loola loolu yëfit kii la waaye islam moom lu teey la bëgg hmm? tey as gor kenn nu waru ko weer te ñoom ci loolu ñëwee loo ko gisee ci ki ki ko ko seytaane yebal moo daan dafa nekkoon foto ko génne ko waaye sante su ko dafa tey man eh, wax wax na ma ci yi ngeen wax eh, waaye dañ ma ko wan ma ma door ko yëg tey gannaaw bi door nañ ci ñaar ndax ñooñu bañ ko gisee ñoom lañ daal ñëw ne ñu ko doon xamutal ne lislaam nii la santaane waaye defam ba may laa tàmbali naa leen képp koo xam ne kii yor na appareil wax leen ma ko ñu jàpp weeraanga ka ko def diggam ak boroom xam naa ne pexam seytaane la waaye nag li Sëñ Tuubaa bëgg yoon si bëgg ko suñu borom bëgg ko kenn mënu ko am kenn mënu ah man de man de sama bakkan bii sama dund ji jarul ma li Sëñ Tuubaa déggoon suñu bakkan mu booyee ci man sama dund jarul ma ko balaa jàpp fu ma war naa ko yem mu mel ne sëñ Omar ba tey ci wàllu dóor yi mu mel ne kon àtte eh, liñ fi àtte du ku jàdd rek lañ fiy dóor waaye ku xas nit wala ku yàq yàq derub nit wala wala wala yeneen ak yeneen te nga ñëw joxe sa bopp dana la dóor ca yooye xoolal suñu mbàkk mi borom fii ba tàyyi am na taal bi suñu ay doo am na taal bi suñu baax moo ngi doo am seen ñaari taal bi xeex nañ kenn kii ëpp doole morom mi kenn ki mu yor paaka dem ko morom mi buñ bokkee ñëw fi suñu mbokk suñu mbokk dafa naan nañ nañ fa paaka bi dugal ko ci eh, jam-jam bi fa yem ñu mar ko dafa ko bokk leen faje loolu ci loolu la eh, ñoom ñoo génn ñoom kilifa yooyu ñoo génn ñoom wax ba matlaa di ne suñu mbokk daf la nga waxoon dem faj kenn xam ne faj kenn gën a yomb faj ñaar am na ci koo xam ne kiit nit ñi la jógee bëccëg ñëw suñ ñëw ne suñ mbàkk bu sa laay laaj fekk suñ mbàkk ngi toog suñ ko des na ma ko de mu ne ko man de dama am soxna ba noppi njaaru booba bu ma lekkee du ma du ma suur su ma naanee du ma màndi su ma tëj di neew ma nelaw ndax tiit ko sama te ma dégg ne loolu yow yaa yoroo yàlla di digg aussi ci baatu Sëñ Tuubaa suñ daal na ko waaw loolu day dañ lay yóbbu ci ak bënn mbo woo mbooloo mi sànni ay xeer ba mu fees muy sa bàmmeel waa ji fi mu toog dafa daal di jël mu mu sal summi teg ci kanam bu ñu ko defar na ko waaw ba tey sëñ Omar ki nga xam ne yàlla dogal na nag mu sangewu mu am soxna ñëw ne daa bëgg ñu àtte ci moom àtteb sariya kooku naka ngeen di jëflante ak moom kooku man ni defagu ko ci moom ni defu ko ma fekk ci mbàkk mu daal def nañ ko moom ma déggu dégg naa ko waaye nag fekk moom fekk naa fii ku suñ ko yóbbu la ak takkusaan suñ ko mbàkk ko dóor boobu fii jàkka jàkkaa ñu ci biir kër suñ boobu ab xalifa am bu njëkk moo fa nekk rakkam yëpp wër ko mu woote ñu ko dóor ñu ko dóoree baagal ki ko doon nee na waa boo demee ne sëñ Fallu yu waxtu bu dee dóor bu mu koy wala kilifa yi seen dënn yu rëcc ñu ne ba koo ka ko doon dem bañ déggatuñ ab yëngu sëñ Mor mi xal fi daan ne ana ku ma ci mën a dabal kooku yi ci sëñ Fallu am ko ko mën naa koo dagg ci armée Amadou loolu tudd mi ngi fi mu ne ko boo demee ci loolu mu bu boo nee bu ko wax suñu fàll wax foofa la def rek noonu allah sëñ Omar foofu la ne. ndigal daal ndigal rek lay lay jafe. ba tey sëñ Omar ci melokaan li yar bi nga xam ne nag moom la ñuy dóore maanaam melokaanu yar bi moom nan la mel maanaam xiir la wala xet la wala nu mel. gëj la bañ bëj la du xetti lenn ak doo doo bu baax ci ci yoon santaane ngay man lu ma ci fekk dégg naa sax ñu naan xaw ma si ki ko waaye loolu amut man de ku ku ku ñu dóor fi sama kanam du ma nag góor gi laal ko loolu bu fekkee ànd ak baayam wala ko ku mu koo xam ne araam na ko kooku rek waaye lu bu ko bu ko laal bu bu yar ba rek day daal. macha allah sëñ Omar waaw jërëjëf mbokki téléspectateurs yi tàmmu di topp ñaari ñaari site internet yi su ko defee ñu jox sëñ Omar mu daal di def ay kàddu yu mujj bisimilah. kenn ku yàlla bind li sëñ Tuubaa dénkoon sëñ Mbàkke Buso ci islam bi kenn ñëw di ci ku ci bëgg a wax na def nii yéen nii ngeen def. ñëw leerlu ba am lu leer waaye nag ci àll ba rek di wax yooyu sa njort loolu baaxul njort baaxul gis ko topp ab jullit di su ko weer ñoom nag lañ gëm laay sitawi gëmuñu lislaam laye lañ jàng loolu lañu xam ne kii waaye nag lislaam bi nga xam ne moom lañ jàng moom la xam moom lañ doon nañ ko baal nga xam moom doo nga tax yàlla binduñu nañ ñu bàyyi loolu buñ ci jéemee ay pexe du sotti ma nangam jàmbal jaañu amuta waaw wax nañ ma ay tuum na mi ngi ciy wax ah, am am na keneen kuñ ma wax loolu lépp suñu bëggee am lu leer ñëw ñëw ñu ñëw ñu jële xamuñu lii nit ki di su dëgg rek teel ne tàgg loolu moom bu am amee am na loo xam waaye nag tàggaloo dem na ba tàggaloo loolu moom nit ki da ko war a leerul ba mu leer daal moom lay dégg ba daal li fekk maa ngi fi maa ngi fi lu suñ tubaab dénkoon suñu mbàkk bu ku yàlla bind mënuma ko teel sama bakkan jarul ma wasalaam